ni ngeen mobiliser woo rafet na waaye Pape li ma gën a ñor mooy proximité bi ndax président de la république Macky Sall loolu la santaane mooy ngeen dem ci kër yi carte ku ko fa am am na ñu dul génn ci ndaje yi ci biir kër yi am na suma kër am na yeneen kër ngeen wax leen ni bu dee dañoo bëgg def loo xam ne dina neex sëñ muy sëñ Muntaxa ibnu Cheikh Mamadul Bachir xaadimu rasul dañuy woteel Macky Sall loolu de moo koy neex li mu bëgg mooy Macky sàll gañe moom nag wax na ma ko du wax ci politique woteel leen kii wala bu leen woteel kii waaye leeral na ne Macky sàll doomama taalibeema xaritama te yërëm na ko lool te yéene na ko lool ndax yemul foofu am na ñu mu waxal ni leen bu doon moom sañ naa wax ni nañ ko woteel ca rajob jumaa ja lay toog ni na ko ñépp woteel bi mu ko sañul nag sañ na koo ñaanal yaanal ko jàmm bëgg mu am ndam ndax liggéey bu rafet bi muy def ànd koog moom te mu ànd ak yar ak teggin ak sutura ak teranga nun na ci loolu la ñuy dox kon na ngeen waaj bureau de vote yi fexe nañu ba mu jege leen ku nekk danañ la informer ba nga xam fi ngay wotee loolu sant nañ ko ñii ci marché bii la ñu ne fexe leen ba six heures du matin ngeen dékki ndax benn fan la seenu carte balaa huit heures neuf heures lu fa nit ña gaaw gaaw a ñëw bu bureau yu ubbee ngeen voté ñëw ndekki añ déglu résultat yi bala six heures tendance yi jëkk a génn ngeen xam ne seen candidat seen mbër gàññe daan na jàmm ji yokku xéewal yi yokk noonu de Macky Sall la ñu àndal moom la ñu bëgg mu gagné te ci lool la ñuy nekk allahuma sali ala sayyidina muhammadin wa salim jigéen ñi maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf nag personnellement li may wax bëriwul parce que benn objectif rek moo ma tax di wax mooy li nga xam ne ñëpp ñoo ko bëggandoo muy lenn kese kese kese kese kese kese muy falaat président Macky Sall. Eh, parce que parce que wax dëgg fa yàlla. ñun instant bi nii amul kenn koo xam ne doy nañu suñu réew mi ku dul président bi nga xam ne ñu ñoo ko faloon ñu falaat ko. waaw ah li nga xam ne moom lay continuer di def ni mu àggali koog jàmm. yéen nag maa ngi leen gërëm parce que man sama koñ laa am franchement parle bu ma demee Bokotul ak bu ma demee Saam ak Madiyaana fu mu mënti doon guddi guddi yi jànatu lay finance bi may woote tamit samay nit ñi may woo ma ñi nga xam ne gëm nañ li ma gëm. yéen ñii ñëpp ñëpp amul kenn koo xam ne mos naa sa wax lu ñaaw wala bu ma ko bu ma ko bu ma ko waxee dégg yàgg lii ma ko daal yëgu ma ko maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi leen di déggul parce que mënu maa wax sama yaay rek ñoo fi nekk te woote ñu wuy si la yombul. ku nekk ci janatu gi rek xam ne ma man maam Diarra Fall maa bëgg Macky Sall bis bu set ma wax ko ba lu ma ci góobee gar ko ku bëgg bëgg naa ko bañ na ma jox. man Macky Sall maa ko bëggal sama bopp. ba képp ku nekk fii nag maa ngi lay ñaan bu bis baa nga dem votel Macky Sall ñu falaat ko ñu xool ba xam naka lay def te incha allah buñ ko falaatee dina baax. te ngeen jàppale ñu nag ci ay financement ñun jigéen ñi Jannatul Mahwa jigéen ñi Touba kuy teel a jóg ku nekk xam na ni fii soo jógee si 5 heures du matin 4 heures du matin jigéen ñi rek ngay taseel. ñuy dem di ñëw di daan seen doole te bëgguñu nag lu dul di leen dimbali yéen góor ñi ak jàpp ci suñu njaboot bi pambay mi bi ma ko waxee nag dama ne ko dinaa ñëw waaye dafa am keneen kun àndaloon te ñun dañoo bëgg nag ku ñu jàppale ñun jànnatu max waa ndax boo gisee ñun suñu waa koñ man dëkkuma koñ bi koñ bële laa dëkk bi may ubbi sama kees kay cinq la ubbee sama kees xaaruma gouvernement waaye nag dañoo bëgg ku ñëw jàppale ñu sunu koñ bi jannatu amuti làmp jannatu amul ndox dañoo roota roota root bay bëgg a dee kon nak jannatu ku ñu jàppale ñun nak dinañ jàppale président ba mu tok premier tour waye bu toogee dal la dimbali leen ñu rek ngeen def ngeen din leen ak yeen ngeen wax ngeen defal ñuko loolu lañ bëgg bëgguñu leneen. man nak dama bëgg Macky Sall da xamul lu ma dugal ci Macky Sall tabassek ah waaw waaw jàmbaar jàngoon de. Tapha Seck ji and yar am teggin bëgg ñepp xal yoon yi ba ñepp ñeme tabassek mo ñu jappalé man ma ci lay noyé tax ku ma woo ci Macky na ma ci tëdd ba mu jeex ma ngi ci Macky ndax fu ci heure bu jot la jógee ca Macky ñew ca man. bëggu ñu dara gudul luñu suñu ñaq rek lañ soxla ngeen and ak nak ku jara jappal muy Pambay bu gasan kàmb woon ci ñu dugg ak mom ci biir. ñu ñaan nag da ngeen bëgg ñu jappal président Macky Sall ñu ñaan yeen tam ngeen jàppale ta yalla tax son nañ ñun ñun jant suñu lampe yi du tak suñu ndox amul rod nañ ba magget dañu bëgg ngeen jàppale ñu te tax bu ngeen jappalé ñu jappalé leen gëmuñu ko du président Macky Sall nak ak Pambay mi ngeen tek jant wa ngeen and suñu càmmiñ ñu baax muy ma jiital ci Ndofane mi ak suñu xalé goor yi nga xam ma sha allah liggéey rek lañ xam. ci na lolu hôpital bi tam ba tey ci lay dess ndax ñing koy yéssal président Macky Sall mi ngi koy yéssal projet bi mu tambali 3 milliards. taax li gën a rëy ci Touba fii ci hôpital bi lay nekk yi nañ ko moom la def ci gazon bi ab R plus 5 lay doon ba nga xamante ni bii service yi ëpp ci service yi danañ fa nekk. waaw daa ci leen loolu kon loolu ab cër la ndax lu mat ñetti milliards bu ñu ko yëkkatee dugaloon na ko ci hôpital bii seenu hôpital la ndax. yéen ko gëna a jege ko wuf day dëkk bo nga xamni lo fi def Sénégal gëpp nga ko defal tay ji fo taxaw ci Sénégal da nga fa fekk kër sëñ Touba réew mi ñëpp nangu nañ ni Sénégal gii Sénégalu sëriñ Touba sunu sang bu baax ba sëñ fallu daan na wax ni may Sénégal. kon ñëpp xam na ni Touba mooy Sénégal waaye nii ko sëñ bas bu waxe ku gis président Macky Sall li mu def ci Touba su ko doon xool ci ay résultats élection du ko def waaye moom jël na ay résultat élection dafa xam Touba xam lii Touba xam gëdday Touba